fa mu jógee rek moo ne mooy inna akramakum inda allahi atqakum foofu la foofu la foofu rek la bàyyi ko bokk di noo bokk ndigal li li ñu digal noo bokk li ñu tere da ngeen ñëpp noo bokk di jàmm cëriñ cëriñ amut ci baalaay ci wax ci eh, eh, ci wax jooju rek ci alquran ci la bàyyi ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla doy eh, yéene la waaye kon ku jombul ña nga am xam diinu nasiha bi dafa ne diine nas laabiri rek la diine ak diinu nasiha diine laabiri rek la kon mooy li ma li ma wax li ma yéene sama bopp moom rek laa leen yéene li ma bëggal sama bopp moom la leen bëggal ndax nooy no bokk no bokk Adama ak Awa bokk di jaam bokk ndigal bokk tere kon eh, te it yonent wax ne diinu nasiha diine ba diine jeex na laabire rek la kon ngeen ngeen xam ni man mii tey yàlla def na lii lu am force la daje nun ñi nun ñi parce que mooy am occasion euh, ci daje bi loolu man am naa ci cant guri cant gi weesu wut am naa yëlla ju ma mën a wax ak yéen man leen laabire laabiré gi nag daanaka weesul kàddu yooyu weesul kàddu yooyu jariñ amut inna akramakum inda atqaakum moo moo mooy moo foofu la jógee ki ki la ki ki gën a tedd mooy ki gën a ragal yàlla dañuy da ngay dem sa sëriñ dañuy sa sëriñ si maanaam ñi dañoo dem ba rafet seen jortu rafet ci moom sa digg moom boromam loolu mooy moo foofu la tàmbalee ki nga xam ne da ngeen di bokk di dund ngeen di bokk di jëf ngeen di ko gis muy mu jëm ci boroomam yitte lam ci war a yitte yitteem jëpp mu def ko ci lépp lu muy def yàlla tax mu di ko def na ci boroomam kooku loolu rek ku may njiit ndax njiit gi sax wutu wutu tëllu ko njiit googu mu am sax tëllu ko waaye nag ña ko ña ko ña ko ñi gis loolu ci moom ba ñee ko ci ba yaakaar ne man la de di li mën nañ ko wut ci moom loolu rek moo indi cëriñ loolu rek moo indi cëriñ am lawul noonu loolu loolu rek la kon ngir noonu ngi doy jaaraka doy na ngir xamee ko noonu xam bu leen jombalee dara seen bopp ci lu baax dara jomb leen laqad karramnaa banii aadama la yàlla wax doomu aadama la yàlla teral teral na ko ba noppi moo xam nag bu mu gën a sàmm teraanga jooju rek di gën di yokk di gën a jég jëm ci borom gën a jege borom ba àjjana waaye lu mu gën a sàggan di teraanga jooju di gën a dellu gannaaw di gën a dellu gannaaw ba mel ne bàyyi ma foofu rek doy nañ ah doy naa yëpp journaliste euh, man xaw ci sax waaye da ngeen am tuuma da am tuuma hmm. tuuma ji rek xam naa ne du du du du du loo xam ne lu nekk lu mën lu mën lu mën a wér la. ndax nit ñi nit ñi nit ñi dañoo bokkut xel yi bokkut jikko yi bokkut yaakaar naa ne eh, journaliste bi nga xam ne am na xel mu rafet xel mu baax am na jikko ju baax te si dara ba moom yaakaar naa ne dana sàmm la muy bind ak la muy wax. kasaalika safaan ba it noonu rek la dem kon na ngeen góor góorgóorlu bu baax <laughs> xam ngeen xam ngeen dëgg xam ngeen fen xam ngeen luy dëgg xam ngeen fen di ngeen góorgóorlu ba luy dëgg rek na ëpp seen seen seen i wax ak seen i bind ak seen i yëngatu la dul dëgg na góor góorgóorlu bu baax di ko wattandiku seen kéem kattan <laughs> foofu rek laa ci foofu foofu rek laa ci yow. noonu doon la demee ñun jomb na dara gisu sëñ rek ñu ne nga defe ne da da moom taxawaayam bi daa jomb déedéet ba jëmukaay wutukaay rek la yalla rek fi nekk. waaye dafa moom moo waxaat boppam ne ki gën a tedd mooy ki gën a ki gën a ragal yàlla. wax na. jërëjëf sëriñ ak taalibe foofu rek. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. na ngeen fi yàgg lool te nañu bokk góorgóorlu bu baax. a yem képp. ay jaam rek lañu fa borom yàlla boo ko nu digal boo nu tere rek la demee. jërëjëf ma yàlla yàlla suñu mayoon mën a fëx rek wuti yàlla. doonu yàqal dara. doonu yàqal dara ci suñu cëru adduna bi. ndax suñu borom noppi na kenn ku ne lay sa cër yàlla noppi na ca. foo nekk mu fekk la kon li ci am solo daal mooy nan nañu xam ne am nañ borom nañ ko gëm nañ ko gëmee ba noppi ñu xam ne moom moo digle lii xam jàng jàng rek la wala nga laaj. moo digle lii moo tere lii ñu góorgóorlu ci la mu digle lu mu ci sama suñu kem kàttan ñu góorgóorlu ci la tere da daw suñu xel suñu xel bakkan suñu kem kàttan wax bépp ngi ni téere yi aadama <laughs> téere yi gag bi lépp li ñu rekk fi nekk jërëjëf Mbacke jërëjëf téere yi li ñuy bëri bëri bëri bëri ak alxuraan la ko jiitoon mm. lii dong la